defal ñu tey siir defal ñu mucc mhm. tey siir mooy mbir yu jàppandi léeg nit di kër këri lool ay mbiram ñàkk jàppandi borom bi subhaanahu wa taala xakim la ndeysaan mu ngi ko séen muy daw jëm ca mu di ko puus bañ mu jot ci ndax bu ca jotee da du baax ci moom moom nag mu ne alamik dana ca jot di daw rek keroog ba mu ca jotee rek la ko dal keroog la ko dal bañ noppi koo gis yal nañu jàppandi loolu suñuy mbir nee na léeg ngeen bëgg dara te fekk gënut ci yéen léeg-léeg ngeen bañ dara lool te fekk moo gën ci yéen li waral lool nag nee na moom moo xam waaye ñun xamuñu moom moo xam waaye ñun xamuñu waaw yàlla nee na man maa xam yéen nag xamu leen waaw nangu nañ moom moo xam waaye ñun xamuñu suñu ñàkk xam moo tax ñuy daw ci ginnaaw mbir taxa moom mbir ma noo cay jote daw ci ginnaaw mbir mooy dajale te doo ko jariñoo léeg-léeg sax sa njaboot sax duñ ko jariñoo te doomu aadama xamul ne loolu gënut ci moom allahu akbar waaye yàlla xam na ko yàlla ñu tàggatal lépp lu jàppandi ci ñun dox suñu digganteeg lépp loo xam ne gënut ci ñun moom mën na ko yàlla nañu ko boole defal ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen nuyu yàlla leen yàlla defal jàmm ak sutura bég nañ lool ci ni ngeen di wéttalante ak ñun ci suñu jotaayu fajar bi nga xam ne yitte ji ngeen ci am ci di ko bàyyi xel dana tax bind buñ ci baamu benn yoon sax mu def ñu kersa lool suñu diggante ak yéen ndax yëg gi ñu yëg ne lum teel teel yéen a ngi koy bàyyi xel te di ci ànd ak ñun ñaare fajari dimanche yi dama doon ñëw di indi ay ñaan ñu di ci waxtaan ndax loolu itam daa bokk ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk ci ci nga xam ne suñ borom subhaanahu wa laa da koo farataal ci ñi moo tax tey moom bay bon nga taal li ngay enregistré rek jéem a jël émission bi lépp ndax ñu waxtaane ci ñaan yi nga xam ne yu baree bari nit ki dana ko soxla ci bis bi wala li ñuy tuddee ñaani suba yi ak ñaani ngoon yi bu ko defee sa dundu gi yëpp doo toog di ñaan waaye danga am nag loo téye ci sa loxo ba saa yoo nammee ñaan sa borom subhaanahu wa taala muy suba baa muy ngoon nga xam ni nga koy ñaane tëm dëppook ni nga war a ñaane ndax daa waxoon ne ujibu daawata daa'i iza daani yàlla ne danaa wuyu woote ku ma woo waaye nag ci kaw mu woo ma ni mu ma war a wooyee allahu akbar yenent bi sallallahu alayhi wa indil ñu nag ni nga xamante ne noonu lañ war a wooye borom bi subhaanahu wa taala jàngale ko jàngale mu yaatu xiir lool nag ci xeetam yu jàng ko ndax inna alladina na an ibadati la borom bi wax ñi nga xam ne dañuy rëy rëy lu ba di ma bañ a ñaan sa yadxuluuna jahannama danaa leen dugal ca fu metti fa yàlla nañ fa mucc ngeen mucc ci moo tax ñaan gi joxoon naa la ko ay yoon joxe woon naa ko ca stadium Maris Ndiaye ca bis ba waara ji duniyaaye woote woon nga xam ne mooy sayyidul istixfaar sayyidul istixfaar mooy ñaan gi ma la njëkk a jox moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man xaalaha min annahaari muuxinan biha fa maata min yawmihi xabla an yumsi fa huwa min ahlil janna wa man qaalaha min al wa huwa muuxinun biha fa maata xabla an yusbix fa huwa min ahlil janna allahu akbar xadis bu wér boo xam ne imaam Buxaari nettali na ko yonent yàlla Muhammad nee na ñaan gi koo xam ne wax na ko ba noppi gëm ko gëm ko maanaam dëggal ko dëggal ko lim ciy wax parce que wax ji engagement la yooyu jël danaa ko firil nee na koo xam ne wax na ko ba noppi gëm ko bis boobu mu ko wax bu ca faatoo dugg aljanna ci bis bi yépp koo xam ne gont na ko wax guddi googu bu ca faatoo dugg aljanna bu ca faatuwut nag am yiw rëy rëy rëy waaye xamoo gannaaw xamoo ba xam da ci faatoom doo ci faatu kon wax ko te rafet ci njort tëwee ñaan googu mooy sayyidul istixfaar defe naa ñu bari ci yéen mën nañ ko bu dee nga jàng ko ci rajo bi du yomb bindal ci li nga yor sayyidul istixfaar boo xëyee imaam joo dajal ne ko bindal ma fii sayyidul istixfaar dana la ko bindal sëriñ daara boo dajeel boo ko waxee dana la ko bindal boo ñu wooyee téléphone itam danañ la ko jéem a envoyé audio yi nga xam ne moom lañ ci am léeg nag nit woo la bëgg nga dicté ko ko te léeg-léeg wax dëgg yàlla am da ko du tax a jàppandee noonu ndax bu fekkee li la war ci bëccëg bi moo ëpp li la war ci guddi gi te fa ngay nekk doo mën di jàngalee ko dicté ci téléphone du yomb waaye benn numéro boobu lañu am incha allahu taala boo bindoon ci whatsapp bi envoyé ma ñaan ki bañ koo def audio bu gudd boo xam ne bu audio ya baree duñ mën a déglu yëpp ca saasa da nga ca jot su fekkee ñu am connexion saydul <laughs> istixfaar laa lay njëkk a jox ci ñaani tey yi ndax mu wuutu yu baree bare yu nekk ci suñ kanam ndax yóbbaale na moom di ñaanu suba di ñaanu ngoon ay ngënee la mit bi indaale na ko ndax nee na ku ko xëy wax te gëm ko waaw wóolu ko muuxinan biha la nga wax lépp doon dëgg nga di ko jëfe bis boobu bu ca faatoo dugg aljanna ku ko gontu wax guddi googu bu ca faatoo dugg aljanna moo tàmbulee ci allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtanii wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastataxtu auudu bika min sharri maa sanaxtu abuuhu laka bi nixmatika alayya wa abuuhu bi danbi faxfir lii fa innahu laa yaxfiru zunuuba illaa anta loolu mooy ñaan gi bu la neexee nga toppaat ko bu ma koy wax ñu ànd waxandoo ko muy suñu ñaanu bisub tey fii ba jant bi di so yàlla nañu yàlla defal tawféex ñu jeexal bëccëg bi jeexal guddi gi jeexal koo jeexala jeexala jeexal ba mu doy tubarkalla allahumma yow yàlla anta rabbi yaay sama buur mooy yaa moom moo tax mu ne nga wax ko te gëm ko danga koy gëm nag ne ko laa ilaha illa anta ku dut yow du yàlla yàlla xalaxta nii yaa ma bind wa ana abduka ma nekk sab jaam wa ana ala ahdika wa wahdika ma doon koo xam ne dafa am kóllëre gu dox suñ diggante ma war laa jaamu nga am loo ma dikk ma war laa jaamu sama kemt laayal nga ne ko a'udhu maa ngi làqootu ci yow min sarri ma sanaxtu ci ayu li may jëf allahu akbar ñaan gi li ci nekk ci xikma lu rëy la abuuhu laka bi nixmatika alayya wa abuuhu bi danbi faxfir lii fa innahu laa yaxfiru dunuba illa anta defe naa enregistré nga ko walla bu fekkee jàppandiwut ci yow ci waxtu wi ci loolu bindukaay ak li ci aju mën nañ la ko tënkal ci niñ ko waxee woon ci suñu audio yi ñu koy faral di def yónnee la ko gratuite insha allahu taala nga man koo jàng su fekkee loolu day jafe ci yow wala ngay mag mu mënta jëfandikoo whatsapp boo xëyee sa moroom mag mi nga dendal te mu sut la bind tuuti ndax bind yi tolloowut ne ko sayidul istixfaar laa dégg sama sët ba di ko joxe ma bëgg nga bindal ma ko mu jàngal la ko ci seen saa nga daal di koy tàmbalee jëfi suba ak ngoon insha allahu taala li nga ciy amee lépp yàlla na doon loo muurloo te nga dund ba doyal waaxu dugg aljanna ndànk yàlla mën na ko yàlla na ko def kon genn ñaan a ngi ñoonu ci ñaan yi ma la indi tey geneen ñaan gi ci topp mooy dañuy wax ne saa yoo xëyee na ngay wax baat yi allahumma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilayka nusuur moom it ci ñaani sunna yi la bokk waaye ñaanu suba la boo xëyee waaw kon boo xëyee sayyidul istixfaar baax na suba ak ngoon geneen ñaana ngi nii koo xam ne moom it baax na boo ko defee itam am ci tiyaaba ju rëy boo leen mënee boole moo gën <laughs> boo leen mënta boole boo yemee ci bële bee mooy sangub ñaan ya sangub istixfaar yépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne allahumma na nga wax ne yow borom bi bi ka asbax naa yaa ñu may ñu xëy ci yow la ñuy xëy wa bi am say naa ñi ngi nii gont ci yow la ñuy gont wa bi ka nax yaa suñ dund gi yaa ko moom wa bi ka suñu dee ëllëgit yow la ñeel ci sa loxo la nekk wa ilayka nusuur yaa ñuy dekkil boobu taxu koo gudd taxu ko gudd xaaral ma baamtuwaatal la ko allahumma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilayka nusuur mhm. soxna aram si la jëlal big <laughs> jëlal big yaa soxna alimatu géey ma baamtuwaatal leen ko allahumma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilayka nusuur mm-hmm. mi ngoog suba gu jot boo xëyee rek wax ko te dem moo tax yu bare bari da nga koy régler bi nga xëyee bala ngaa xëy góorgóorlu di régler yi nga war a régler yenn détails yi moom regle ko rek sa digganteeg sa boroom nii waaw am baat yoo koy wax waaxu di wi bari na ndëgg sërëx yoo xam ne loolu doo nga la ci mën a génnee waaw bari na ndëgg sërëx yu ñu lay lalal ñaan borom bi subhaanahu wa taala te sell doo nga la ci mën a génne kon nag bu la ci dara taxa def ginnaaw loolu ngay wax boo xëyee bu ngoon jotee nag Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it indi la nga cay wax nee na dangay ngay wax allahumma bika amsaynaa wa bika asbaxnaa wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilaykal masiir dañoo xaw nuroo tuuti waaye bii day ngoon bii di suba bële nekkoon suba dangaa waxoon allahumma bi ka asbax naa bii di ngoon nga ne allahumma bi ka am say naa mooy yàlla xëy nañ bii nga ne ko yàlla gont nañ bee nga ne ko xëy nañ wa bi am say naa bii nga ne ko wa bi ka xëy gont nañ waaye xëy nañoot yaa moom ngont mi yaa moom xëy mi wa bi ka naxyaa wa bi ka namuutu <laughs> boo xëyee suba bii ngay wax mooy bi nga bindoon léegi allahumma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilayka nusuur bu ngoonee nga wax bii allahumma bika amsaynaa wa bika asbaxnaa wa bika naxyaa wa bika namuutu waaw kay docteur Anna ak soxna Faatu Mbàkke bu alaaji sëriñ Seck ñoom nee nañ mokkal nañ docteur moom day jàngi ba ñëw mën a ko taril mu ne ma xaaral bu ma gën a sori at moo xam ne nangoo gut tari xam naa daa bëgg a bàyyi ba wàcc door a ñaara ngi noonu ci ñaan yi nga xam ne indil naa la ko bi saydul istixfaar jàlle indil naa la goo xam ne suba la ak ñaan goo xam ne ngoon la amaan na beneen boo xam ne itam ci ñaan yooyu la bokk moo taxoon ma ne la fexee la enregistré émission bi yëpp rek bu ko defee daa ko mën a yor di déglu du ñàkk am ci bu la gën a jubu nga tànn ko def ko muy sa gos booba moom dangay wax asbax naa bu dee suba la bu dee ngoon nga wax am say naa ala fitratil islaami wa kalimatil ixlaasi wa diini nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa millati abina ibrahima xanifa muslima wa ma kaana min al suba ngoon ba baax na bu dee suba asbax naa ngay wax suba gi moom moomoom asbax naa ngoon moomoom am ala fitratil islaami ah, waaw nañ ci doon ay jullit fas yéenee dundu lislaam yewwu nañ ci kàdduy sellal yewwu nañ ci diine ji nga yónni woon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu jële woon ko ca rëddiinu baayam ba ibrahim ma nga xam ne ku jeng la woon sori ak bokkaale doon ab jullit mësta bokk ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale mësta bokk ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale waaw mhm. ah, kay daal di dem mu am solo lool mu am solo lool euh, geneen gi ma ciy teg door laa baamul yi nga xam ne ñoom laa jot indi mooy allahumma moom it ñaan gu baax la ngoo xam ne sa jafe-jafe yeeg sa njàqare yeeg yi ngay nëbb bañ mu feeñ ak yi ngay lijjanti bëgg mu sotteeg yépp baax na ci ndeysaan allahumma jàppal gaaw inni asaluka alaafiyata fi dunya wal axira allahumma inni asaluka alafwa wal aafiyata fi diini wa dunyaaya wa ahli wa maali allahumma ustur awraati wa amin rawaati allahumma ixfadnii min bayni yadi wa min xalfi wa an yamiini wa an simaali wa min fawqi wa acuudu bicazamatika an uxtaala min tahti ndeysaan ñaan la goo xam ne mel na ne xaw naa gudd baat yi xaw naa nuroo waaye ay njariñam fu ko waaye takk weesu na ko wallahi su ma sañoon yéen ñëpp ngeen bind ko su ma sañoon ñun ñëpp ñu di ko jàng ndax mu bokk ci suñu arme yi nga xam ne dañ koy régler suñu yëf te mën a doxal ba tax sax kenn duñu mën a foye parce que xaaral ma jaaralaat la ci waay bindal allahumma inni as'aluka al fi dunyaa wal aaxira allahumma inni as'aluka al afwa wal aafiyata fi diini wa dunyaaya wa ahli wa maali allahumma ustur awraati wa amin rawaati allahumma ihfaznii min bayni yadi wa min xalfi wa an yamiini wa an shimaali wa min fawqi wa audu bi azamatika an uxtaala min tahti bu ko defee nga góor góorlu ci suñ borom subhaanahu wa taala aji jàppale ji yàlla nañu boole jàppale bind boobu ci bind yi nga xamante ne ci ñaan yi nga xamante ne soloom fu ko waaye takk weesu na ko ci la bokk gi nga ciy teg te muy juróomeel bi te na gàtt mooy joxoon naa la ko fi ñetti yoon nga koy wax moo xam suba nga koy wax wala ngoon nga koy wax yeneen yi ma wax yëpp te la ñetti yoon wala ñaar wala subaa ngoon li muy tegtale mooy heure boo ko def baax na li muy tegtale it mooy amut ab lim hmm. amut ab lim ndax léegi nga ne ma ñaata laa koy def wala ndax damay bàyyi ba julli ba noppi def ko wala damay jàng alxuraan ba noppi wala bu ma koy def damay tëddam damay toog yooyu yëpp amu ci am na yoo xam ne yonent bi ne woon na bu ñu leen bàyyee rek bàyyi leen bàyyi leen waaw jërul laaj bu ci am ñaar ñett dama la koy wax bu ma wax mu daanu noonu rek xamal ne waxtu woo ko defee baax na amut ab lim bii nga xam ne ñetti yoon lañ koy def lii la allahumma aafini fi badani allahumma aafini fi sam'i allahumma aafini fi badari laa ilaha illa ant léegi tey rek su may daaneel moom laa lay tegal ci ginnaaw waxtaan wi fajara gu jot ndax bëgg nga di ko ànd ak indicatif bi ngir mu mokk ndax njariñ ya ca nekk ci ñaanuk suba ki nga xamante ne day door a xëy allahumma aafini fi badani yàlla yal nag ñu jàmmal ci suñu yaram wépp allahumma aafini fi sam'i yàlla yal nag ñu defal jàmm ci suñu dégg ñuy dégg jàmm rek ba jant bi so allahumma aafini fi basari yàlla yàlla ñu jàmmal ci suñu gis ñuy gis jàmm suñu gis wér ba jant bi so laa ilaha illa anta ku dul yow doo yàlla ñetti yoon ba ca topp moom it tam koy wax ñetti yoon mooy allahumma inni audu bika min al kufri wal faqri allahumma inni audu bika min adabi al xabri laa ilaha illa ant boobu itam ñetti yoon nga koy wax nebe yooyu mu ngi ci bind bi xam naa ñu baree bari tàmbali nañ koo mokkale ci almisbaax bi bu dee jeex yooyu gudd gudd la te ñaan yooyu danañ ci ñëwaat ci ay bis gi di ñëw gën leen koo yaatalal ci suñ bind dimanche su ma lay delloo ci kaw nga di ko xool dama laa jox li nga xam ne mooy sayidul istixfaar te mooy allahumma anta rabbi xoolal li nga bindoon laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastataxtu audu bika min sharri maa sanaxtu lak maa sanaxtu abuuhu lak bi nixmatika alayya wa abuuhu laka bi danbi faxfir lii fa innahu laa yaxfiru dunuuba illa anta yonent bi nee na ku ko xëy wax ci bëccëg te gëm ko bu ca faatoo dugg aljanna ku ko gontu wax te gëm ko guddi googa bu ca génnee àdduna dugg aljanna ba ca toppoon mooy allahumma bika asbax bika asbaxnaa wa bika amsaynaa wa bika naxyaa wa bika namuutu wa ilayka nusuur boobu mooy saa xëyee mu amaat beneen boo xam ne bu ngoonee lay doon mooy am sayna ala fitratil islaam wa kalimatil ixlaas wa diini nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa wa millati ibrahim ba ñaan nga jeex yii yëpp amaguñ ko ci ay eh, audio buñ la mën a yónnee waaye insha allahu taala daañu ko ko def boo ko amee nii baax na ci enregistrement bi dimanche ji di ñëw dinañ la ko laatal nga gën koo mën a am boo ñu wooyee itam ci 77 439 04 07 77 439 04 07 mooy suñu numéro bi am whatsapp ci lañ la koy mën a joxe waaye duñ la ko mën a dicté nga di ko bind bu ko defee nga jël audio bi déglu ko benn bennal ko sa bopp jàng ko ci baa nga jéem ko ci bind wala nga dégtal ko kiy jàngale alxuraan ci sa koñ wala imaam ba dana la ci dimbali dimbali gu gën a leer façon bii ñu la ko joxe ñu bokk ci jariñu ñun ñëpp yal nañu yàlla boole sàmm yal ñu yàlla boole nangul suñuy ñaan may ñu ñu dugg ci bis bi ci jàmm jeexal ko ci jàmm dugg ci ay bis bi ci jàmm jeexal ko ci jàmm suñu borom def jàmm ci réew mi def ko ci réew yu ko wër jaajëfal nañ leen bu baax jaajëfal Oustaz Alioune